saalu chambre des métiers moo daal di dalal ONG concept ci lu ñeel mise en relation ci diggante wéy jëfandikoo yi ak ñi di liggéey Furna Jàmbaar ak waxtu gu soxna yu bari di am ay jafe-jafe ngir am gaz. ci mën a am rek maanaam seen njëriñ lay doon donc daal ñoo xam ni daal filière bi ñu teg en place muy Furna Jàmbaar yi. donc euh, nekk na loo xam ne nii wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi ciy gis seen bopp. nekk lu am solo ci suñu dund. ndax dina tax ñu daal di aar alam bi. te bokk na ci liy xeex maanaam ci dégradation alam bi nga xam ni maanaam dafa nekk ay thèmes d'actualité dana régler problème mu coupe du bois bi. waaye njëriñ li yemul foofu rek ndax noppal na jigéen yu bari ci seen biir wàññ am na solo lool tax tey boo doon toggee këriñ ci yeneen fourneau yu njëkk yi. ay ñaari kilo ñetti kilo mën naa ne bu fekkee yaa ngi sóor ay ñaari kilo kilo këriñ wala kilo diibar mën na la toggal sa añ parce que boo demee ba tey ba sóor bu la neexee nga dindi xale bàyyi ban bi kese moo ñoroon sa sa ji. pare fi ngay toggee aussi du tilim du salte par rapport fono yu njëkk yi. ba pare gis nañ tamit gaz yi dañ daan jënd gaz une semaine mu jeex. tey jii bu fekkee ne da nga war a tàngal loo xam ne añ boo yekkoon borom yow nga war a ko tàngalal nga dem taal gaz bi bool bi mën na lakk. te tey jii bu fekkente day dangaa togg ba pare war a tàngal ku war a ñëw añam yow dangay ngay teggi furna boobu nga toggal bi furna jàmbaar da ngay jël bool bi rek teg ko si. mu war a tax ñi daal di amal sensibilisation dina tax njëriñ li gën a feeñ. milieu rural rek moo ko soxla même milieu urbain tamit dañ koy yittewoo day fekk ni rek gars yi ñoo xamul njëriñ bi donc man li may faral di waxaat rek. mooy maanaam ñu gën a def sensibilisation ba nga xam ni gars yi dinañ xam njëriñu. pour nos ngir aar suñu alam tey jii farata gi mooy borom kër gu nekk daal di jëfandikoo furna jàmbaar ndax dina wàññi saax saaxe bu ñuy saax saaxe àll gi rawatina waxtu gu changement climatique di wane dooleem ci biir àdduna bi.